Caaroy 44 euh, la Sénégal yi bare bari miin nañ ko 1er décembre bi nag incha allah Sénégal bëgg na ko euh, célébrer euh, c'est la première fois nag mu am ñu daal di koy fas yéene célébrer ci noonu nag président Diomaye daal di nay invité Macron ndax dina ñëw ak du ñëw nag loolu yeneen i mbir la waaye yëgoon nañ itamit dikku ko Macron file Assane muy ñoo xam ñoo xam daal ay martyr lañu ndax ginnaaw. ba ñu defee lu leen war ba pare di revendiquer ak di sàkku seen i càkkutéef ci lañ leen boom dinañ ko célébrer nag premier décembre incha allah. Macron nag nee nañ dina dikk ndax évité nañ ko. waaw ah, Macron de dina dikk ndax ñii ay doomi réewam lañu. Hmm. ñii biñ leen biñ leen di rey ay ay ay ay ay lañ. a ca demal Assane. demal. <laughs> ngir yàlla alaaji noppe rek <laughs> waaw waaw dëgg demal <laughs> Assane. Hmm? demal ay français lañu woon. loolu kay weddi ko. voilà léegi kay kon fekkee ay doomi réewam moom la ñuy ñoom la ñuy ñaanal ñu woo ko ko ñii kat say doomi réew lañ dañ leen di ñaanal Macron dafa war a ñëw xool ay doomi réewam ndax bul fàtte ni jamono jooju xeex bi am booba amaguñ indépendance. xeex hmm? xeex bi ñuy demoon. waaw fu ñu demoon. France xeex fa lañ woon. maanaam France lu mu nekkee waaye <laughs> jëwal. ñu ne ni ñaanal daal yal na ni yàlla yërëm. <laughs> xar leen àjjana. waaw lépp lu gouvernement gouvernement bi nu mu leen taxawoo daal baax na ndax it fekkee ni nguur yi fi aw yépp ñi mu wuñ mën du mel nii nguur gi ñëw organiser ko ah lu rafet la yal na yàlla yërëm na xar leen àjjana joxe hélas. mais jàngat bi yëgul de. jeex na tàkk. waaye mais alaaji waa ji mi ngi commencé loo ko loo loo ko xool ba mu ne tekk déglu la liir na la tuuti waxoo dara. moom moo ma xool xool si wax si loo si xam yaa ma wax wax si loo xam. <laughs> ni ma xoolee ma wax loo xam. pourtant yàgg ngaa wax loo xamul te te te sóoraale woo am na yoo xam ne su ma si dee wax lu ma xamul it garaawul. waaw ñëwal àggale jeexee. jeex na tàkk mën na joxe hélas. yaa ngi doon dugg ci xeex bi ñu demoon xeex bi dara laa si xamul xamul fu ñu doon xeexee. mi ngi noonu euh, jërëjëf euh, Baye Assane alaaji mhm. euh, wax nañu dem Macron xay na dina dikk. Mhm. boo seetloo sa démb naroon nañu indi sujet mais moo dana woon nañu bàyyi est-ce que dina am rebondissement ci ak dikkam ndax dañoo yëgoon ni dana ñëw. Mhm. bañ doon xalaat sax mbaadu lim dégg ni président yi wax na ak président ba la ñu nit ci la bëgg a dikk yooyu. waaye daal le premier décembre daañu célébrer ñi nga xam ne ay martyrs lañ leen mën a jàppee. waaw xam nga. li nga xamante ni mooy caaray 44 eh, li nga xamante ni xew xew xewoon na li la xewoon eh, muy ñoo xamante ni dañ doon laaj seen ak payoor mm. ñu wax leen ne leen danañ leen ko fay finalement ñu daal di leen di faat defe naa ni kii bi ñu wane nii sax photo bi ñuy wane ni euh, ci film bi nga xam ni moom la kii def joué woon defe naa mooy film Sembène Ousmane bi <coughs> lañ kii ko parce que dafa dañu joué waatoon li nga xam ne mooy euh, film bi mhm. pour waat ñi nga xamante bi ñooy tiyaare situation bi nga xamante ni bi moom lañ nekkoon ci jamono jooju waaw lii nag son bu li ci mhm. am solo xam nga dafa am loo xamante ni bii tubaab yi mhm. ñooñu ko bindaloon wax ñu ne ñu yëf yi nii lay demee ak naa lay demee ak nii ak nii xam nga am na yu bari yoo xamante ni bii bi nguur gi ñëwee jubbantiwaat nañ yenn yi jubbantiwaat nañ ko gën a joxaat ñi nga xamante ni bii ñooy sunu mhm. maam yi gëdd gëdd gu wér parce que loolu dafa am solo. parce que France Afrique yàgg na ko taxaw taxaw yu am solo France Afrique yàgg na ko jàppale. jàppale yu am solo France yàgg nañu sax forcé di ñu def ay mbir te ñi nga xamante ni bii ñooy ñii lañ doon laaj lañ leen doon fay gis nga anciens combattants yi nga xam ñoo fi nekkoon liñ leen di fay maanaam. représenté wu dara que ancien combattant yi nga xam ñoo nekkoon ci réewum France. am représenté wutoon dara quoi. Uh-huh. am na ñoo xam yoo xamante ne bii sax defe naa ni jéemoon nañu yokkoon nañ ko fi ay temps pour jéem leen a def ci même rang ak affaire yooyu pour ñu kii mais ñaata at après ci la ñuy soog a def loolu. Uh-huh. mu nekk loo xamante ni bés la boo xamante ni bés bu am solo la jëmmal ko dafa am solo. Uh-huh. comme ni nga xamante ni bi noonu la ko état bi bëgg a defee bi la yoon que defe naa ni daan na faral sax di jaar ba jàll. nit ñi bañ a yëg uh-huh. mais bi la yoon li nga xam ne noonu lañ koy séentoo di séentu li nga xamante ne bi noonu lañ ko war a defee màggal googu dafa am solo uh-huh. fàttaliwaat ñi nga xamante ni bi ñoom la ci seeni maam seeni kii yëpp demoon sunu maam yeeg yëpp ñu fàttaliwaat ñu uh-huh. ñii lan moo nekkoon seen mérite comprend mu nekk loo xamante ni bi tey du yem lekk ca la nga xam ne bi moom lañu tubaab bi bëgg a sañax nañu lii moom ngeen ci loolu comprendre nga tey jii xam nga Sarkozy mës naa ñëw fii wax ni amuñu histoire waaw parce que bu fekkee ne ñoom ñooy bind te bindaluñ ñu dara. waaw nu ñuy amee histoire moo tax ñoom mën nañoo bañ a xam. si mais ñun nag war nañu fexe di bindal sunu bopp tamit li nga xamante ni bii moom mooy la fexe parce que gis nga ku ca ne. Mm-hmm. Euh, nettali mag ñi daan nañ nettali. tey am na ñoo xam ne ay historien lañ yoo xamante gën doon nañ def gëstu ci yi nga xamante mooy yëf yi am nañ ci yeneen version yu wuute lool ak version bi nga xamante ni bi mooy version bi ñu tubaab bi di forcé bëgg ñoo wax ne ñu yëf yi nii la demee mm-hmm. am na yu bari yoo xamante ne bi xewoon na waaw parce que nag euh, sunu maam yi wax dëgg fa yàlla jàmbaar lañ woon boo seetee sax nit ñu leen tuddee nii tirailleur daanaka da euh, tur bi sax <laughs> kii turu kii la quoi maanaam turu bi sax euh, turu loolu rek quoi maanaam daal ñoo xam ne daanaka amuñu formation amuñu kii et pourtant soxla woon nañ ñu tey def nañ fa ay jaloore xeex hmm. nañ def nañ li nga xam ne moom lañ def jàppale nañ France ba tey jii bu nekkutoon ak ñoom ak ñu mel ni ñoom defe naa ni kon euh, almaañ ñu ngay daagu ci biir France hmm. parce que yooyu yëpp tamit am na ci donc ñi nga xamante ni noonu la nguur gi doxalee bu Macron ñëwee mooy li gën moom bu ñëwee tamit. Hmm. xam naa dina dégg discours yoo xamante ni bi du dina wuute lool ak façon yi nga xamante ni bi moom la daan dégg. Hmm. parce que bi la yoon moom ñi nga xamante ni bi ñoo war a tenir ay discours yëkkati ay kàddu. Euh, du ñu doon ay marionnette danañ jël dëgg goo xamante ni dëgg gu ñor xom mu ne ko bàcc ci taabal ci mm xam ne noonu la yëf yi demee woon bu ñëwee nag euh, baax na hmm. ci bés bi que dina gën a jëmmaa xam nga tey jii wax ko wax ko liñ ko li ñu war a wax ci suñu maam jaloore yi nga xam ne moom lañ defoon ak tamit injustice bi nga xam ne moo ngi wax ko ko ci kanamu Macron dafay gën a saf. wolof tubaab lañ ko koy wax mu dégg ko <laughs> Macron dégg wolof <laughs> yaa yaa yaa ci kii <laughs> nga dégg nga koy dégg waaw. Uh-huh. parce que parce que euh, bés la boo xamante bi nekkul ni Sénégal lay kese malien yi kii yeeg ñëpp ah Afrique kii ñëw ñëw kii yu bari yoo xamante ni bi tey. ñoo doon dem di xeex c'est que moo doon lu ñu leen di wax les tirailleurs sénégalais ah. euh, senegal am na kii ba mais bon euh, dëkk yooyu yëpp ci lañ ah. jàpp naa ni ñooñu ñëpp dinañ ñëw assister ci bés bi mu nekk loo xam ne lu am solo la ñu koy faral di ma parce que loolu dafa baax ci am réew. Mm-hmm. yenn yi baax na ci am réew. dina gën a yokk nit ñi ñu gën a xam ni kat ah ndekete kat ñun kat ci àdduna bi lañ. Mm-hmm. waaw parce que guerre mondiale. ndekete yoo sunuy maam am na amoon nañ taxawaay boo xam ne amoon nañ ko ci. d'accord waaw macha allah.